salaam salaam les chers téléspectateurs de la 7TV télé bi ñu nuru ba nopp li ñu dajale mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu koy defee tous les mardis eh, seen émission bi di xew-xew nga xam ne fépp 14h30 jote da koy ànd ak ñun si biir tv tey nag ñu ngi fii si yëmbal benn baraat xew-xew bi ñu fi indi nag muy xamante ne ne ma ne suñu xew ñëpp ndax bu ñu déggee partenaire social nga xam ne ñëpp xam nañ ko si social bi nga xam daf koy def moom nag moom la tey jii ni mu moom mooy seet nitam ndax magam bu ñuy wax Mbaye Babacar Niang moom moo réer depuis le premier juin ba léegi génnoon xamuñu nag ba léegi fan la la nekk il est âgé de 46 ans jàpp 47 mu nekk loo xamante ne lu doy waar loolu la. voilà tey 7TV dañ leen set si ndax xew-xew bi nga xam moo dal seen kaw ngeen koy dund depuis le premier juin ba léegi. waaw ñu ngi ci wu bu baax a baax képp koo xamante ne rek mbokk la te bokk ak Grand mbay waaye di leen jaajëfal yéen waa 7TV ndax. déplacement bi ngeen def yombul dëkk beek ni mu xatee yëmbal ak ni mu soree ngeen jaayante ak yàlla ba teew fii maa ngi masawu jëkk samay mbokk waaye di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo di suñu ay dëkkandoo suñu ay xarit suñu ay àndandoo depuis bi xew-xew bi amee ak léegi kenn toogul kenn ku ci nekk fu la sa xel jox rek yaa ngi fay dem muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen moo tax maa ngi wax ni képp koo xamante ni rek dëkk nga ci barab fexeel ba sa ay dëkkandoo nga nekk ak ñoom ci jàmm te lépp lu ñu xewle na nga jaayante ak yàlla dem taxawu leen muy naqar ka muy bànneex gis naa ne koñ bii daal fay nañ ñu sax loo xam ni lebaluñ leen ko. ki nga xamante ni mooy ki ñu réer ñu di ko war depuis le premier ak léegi di grand mbay nekk suñu mag ñu bokk ak moom nday ak baay moom mooy ki nga xamante ni ginaaw bi suñuy jur génnee àdduna ci 1995 moom rek lañ desaloon ci kër gi fii moo ñu yar moo ñu yore moo ñu tette moo ñu jàppale ba fii ñu yegg si nii lii ko dal nag pour la première fois ndax borom kër goo xam ne musul xam génn këram dem fanaani àll wax dëgg yàlla te li ci gën a yéeme mooy bis bi nga xamante ne ci lañ ko mujjee gis mu nekkoon euh, le premier mu nekkoon bis boo xam ne Sénégal yëngu woon na lool jaxasoo yi bari woon na lool. may wax ni koo xam ne sax du sa mbokk moo réer sa dëkkandoo rek bu réeree dootoo nekk ci jàmm waxam du ma laaj koo xam ne yéen a bokk ndey ak bàyyi wax dëgg yàlla booba ak léegi daal xel dalul nekk na lu yéeme dem nañ nag fu ñu xam dem nañ ci police yi dem nañ ci gendarmerie yi dem nañ ci hôpital yi dem nañ ci morgue yi def nañ ay vidéo lancé nañ mais ba tey tey tey yaakaar naa tey le 12 xaw ma le daanaka ba léegi nii amaguñ ci moom benn benn benn nouvelle dëgg yàlla. mu nekk loo xamante ne lu doy waar loolu daf ko doon faral di def jékki génn wala c'est la ah, pour pour la première fois moom du génn. moom du génn moom mooy nekk ci kër gi même ay rakkam sax am nañ ay seeni kër kii Mbuur kii dakaar waaye ñoom pour ñu fanaan loo ko seen kër sax problème la moom dafa jàpp ni guddi guddi rek dafa war a ñibbisi ci këram daanaka génn bi mu def sax mosu ko génn génn boo xam ne dafay def deux jours àll pour la première fois looloo ñu gën a yéem ci mbir yi. kuy ànd na nga ànd ak sa mbokk ndax tey bu metti ñëwee wala bu naqar ñëwee doo gis lu dul say mbokk ñii samay rakk lan nag muy muy Papa Cheikh ñoom Adja ñoom Awatal ñoom nday Njaate ñoom Buuba famille bi yëpp ak famille bi yëpp parce que ñun ñoo ngi dëkk kees tam si biram Gambi Mbay mooy sunu maam euh, nekkoon taalibe maam Laaji Malick waaye danoo am cër si yoonu sëñ Tuubaa am cër si yëpp ndax man kees man maa nekk foofu si jumaa jumaay kër sëñ Ablaay Yaqin nekk ak soxna say bata ay dara xalifa sëñ Ablaay Yaqin nga jékki-jékki ñu woo la ne la sa rakk réer na noo ko yëgee waaw bi ñu ma waxee sama rakk réer na guddi nelaw ma parce que damaa xam mbay xam tolluwaayam xam ni mu mel te xam ni loolu mu mu wax sama rek euh, gëw ma ni gëw ma ko sax mais parce que musuma gis mbay mën a déplacé wu déplacement boobu mbay bu ñëwee kees sama kër la daan fanaan te xaw a gëj na fa lool nag mais saa yi musaa na ñëw kees rek daawul fanaan fenn sama kër lay fanaan si ndax man maa ngi magam mais bi ma woowee ni ma sarak dafa réer guddi googu nelaw ma bi nga xamante ni maa ngi dugg oto di ñëw waat naa si yàlla ak yonent bi oto bi ma dugg bi ma si déparé jëm si dakaar dama jooy oto bi ba ni ma see damay toog ba si ak ma naan ko mbay mbay mbay foo ne mbay wax ma foo nekk mbay ma fekk la fa mën sama tey jii su ma xamoon fu mbay ne barke Seydina Muhammad balaa sama rakk yi déplacé wu man maa njëkk a déplacé wu dem jëli sama rakk ndax mën nañu am alal mën nañu am leneen waaye mbay mu may sa biige ñun moom la ñuy seet di ñaan àdduna ak Sénégal gépp di ñaan état bi di ñaan képp koo xam yaa ngi yëngu rek ndax mbay sénégalais la doomu Sénégal la carte sénégalais la yore nii nu dal nag ñu ngi ñaan lépp lu si waay mën muy police ak ñëpp nu jàppale nu ba sunu rakk ji fa mu ne ñoom nu def li nga xam ne mooy seen liggéey ba mu mën a ñëw fekkaat ni sunu ëtt baay bii loolu dina doon lu ñu neex lépp ñu ngi koy ñaan nag si darajay Seydina Mohamed bi nu bokk barke borom Touba Cheikh Ibrahima. barke si Ablaye yàqin suñu barke maam itam si biram Gambi yàlla wàllu na ndax xale yi xamuñu ku mbay mbay rek la ñu xam mbay rek la ñu miin mbay mooy suñu yaakaar soo nag danoo sonn danoo jaaxle danoo jàq suñu xamoon suñu rek fu mu nekk barke alxuraanu karim nañ ñaan yàlla rek nu tetteel nu mbay ba mu dellu si waat fii dina doon loo xam dina nu neex trop yàkkamti nan ko ñu ngi ñaan lépp lu waay mën daal ba suñu rakk ñëw rek nga jàppale nu si te yàlla tax waaw franchement kontaan nañ nag si seen taxawaay mais daal mbir mi daal doy na waar waaw ñu ñaan yàlla nag mi nga xam moo yor lépp te lépp lu mu defar rek mu doon lu baax yàlla na ni yàlla leeralal sunu sama rak leeral si ñii nga xam ne moom mooy seen mag ba nu dellu si waat sunu ëtt baay bi sunu baay soxla ndax fii ëttu Maysa bi nga ñang mii nga xam ne kër gi moo jiitu fii si benn barak amul benn kër goo xam ne jiitu na fi keroog bi sam papa di ñëw di jënd fii sam maam dafa tibboon suuf jox ko ni ko dina law dina barkeel law boobu ak barke boobu sax na fi te nekk na fi xale yi tey ñoom lu baax li ñuy def pam ñaa lu baax li ñuy def si jaam ñi di ko defal ñëpp tey tiis wi ñëw dal seen kaw ñëpp war a jóg amul kenn koo xam ne rek war nga taxaw rek seetaan leen ñoom ndax seetaanunu kenn ñu ngi tabax ay kër di jox néew ji doole ji ñoo ngi jàppale nit ñi di dimbale nit ñi te yàlla tax di def social bu am solo tabaski gi rek lu muy metti metti sen seen mag réer terewul ñoo ngi bëgg a dimbale jaam yi ndax am na lu nekk seen ginnaaw loo xam ni am nañu yaakaar si ñoom tabaski gi te ay bëgg nañ ay xar bëgg nañ lépp waaye tey adul seen mag ji réer réer réer réer ñoo ngi bàyyi xel jaam ñi nga xam ne ñoom la leen yàlla booleel mais pam ñaam yi ak sóora Malick mii maa ngi ñaan si yàlla si dooley Seydina Muhammad képp koo xam ne yaa ngi leen di seetaan wallaahi di nga yokk ndax li ñuy def dañ koo doon seeni maam ndax sunu maam rek moo ko daan def ñu dellu si ba lii tey ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. voilà noonu Cheikh ñu daal di rek ki nga xam ne doom la ci moom moom itam bu ko defee mu wax ñu nan la yëgee li nga xamante ne moom moo dal ci kaw waajuram wu góor woowu muy Mbaye Niang Mirèr. waa ni ma ko yëgee maa ngi ko yëgee comme ni ko ñëpp di yëgee rek mais man sama bos daa gën a tiis parce que doom laa sax ci xolom nag. mu doon ku ma bëgg lool man tamit xam nga mu nekkoon koo xam ne ku ma sori la ku sori ci man la ni ñuy toogee ni man moom noonu la ñuy toogee ma jour bi mu fi mujjee rek man moom mujjee toog ba mujjee ba mu njëkk a dem moo jëli ko ñëw toog ak moom waxtaan ak moom man ni ma waa léegi baax na amul benn problème dégg naa la man maa ngi si jaamu man ngaa dem toog ci sa booy concentré wu nekk sa bopp jarul sax may xalaat ma dem noonu ñëw laatewaat naan sama papa ñu ma sa papa génn na ma leen waa kon baax na dina ñëw. ma toog pendant deux heures de temps booy di yëngal dëkk bi ci affaire sonko bi sama xel dalul ma dem wëri ko ànd ak sama gars yi ñu wër ba sonn gisuñu dara ma leen baax na dina ñëw lépp li may dem maa ngi am courage que ni dina ñëw ma ba ay minuit gisuma dara mais ba ma fanaanee tëdd six heures de matin la ma sama yaay yee ni ma sa papa ñëw na mën ko ñëwul mën ma jugal dem wëri sa papa sa papa musul fanaan àll ba démb ba tey ba ni may wax yow nii mu doon loo xam ne si ni métti loolu parce que am sa waajur xamoo ci lu mu nekk. xamoo fu mu nekk xamoo ndax moo ngi lekk xamoo ndax moo ngi naan xamoo ci lu muy tëdd xamoo ci lu muy dox xamoo moo ci lëndëm wala moom ngi ci wala ci leer mu doon loo xamante ne xam nga métti nañu trop trop mais nag ñoo ngi ci demee xolub muñ parce que suñu borom lu mu def rek am na lu tax te lépp ay misaal la boobu léegi ni ñu fekkee ñu toog nii wallaahi ni la ñuy toogee dañoo jaaxle dañoo joomi xoolal sama mun yi ñoo dem fenn xam nga ñoom tamit ma yërëm leen trop lekkuñu naanuñu fu ñu leen woo ñu taal seen oto dem daw seen essence ba yegg ñun leen du moom xam nga mu doon loo xamante ni comme ñoom ñuy jàppale néegu doole jàppale jaamu yàlla yi instant bi kon ñoom dañoo dañ leen a war fekk si jàppale leen parce que tiis bi seen tiis la ñu leen fekk ñu toog nii wallaahi demuñu dikkuñu instant bi seen mag yi seen mag yi réer seen mag yi réer nii fu ñu ko gisee loolu kese moo leen ñor mais du leneen mu doon kon loo xamante ni deret moo fort parce que daa am lu mu def ci ñoom ñoom tamit. tax ñuy def lii parce que xam nañ man tamit doom laa maa ngi gérer tooguma su ma xëyee dugg fii dugg fee fu ma dégg ni am na fu ñu ko signalé damay dem ànd ak sama papa yi war ak ñoom ba sonn su ma demee gisuma dara ma ñëw ba tey damay ànd sama courage gëm ni ba tey jii nii ba tey ni may wax ak yéen suñu bi jeexee su ma jógee su demee di wëri war naa mën a gis sama papa parce que courage boobu laay demee mu doon loo xam ne si nag métti na trop 13 jours ci tey nga toog gisee ko sa papa. ci koo xamante ni saa yoo yeewoo da koy gis treize jours ci tey mu toll loo xamante ni jàmbaar moo koy muñ jàmbaar dëgg moo koy muñ teg lépp nag su loxo suñu borom parce que moom moo ko namee nii di masawoon ak sama papa bu baax a baax sama bàjj yi sonn nañ ci amul luñ ci dawul ak sama jabaru papa yi ñoom ñëpp sama sama papa ji toog wallaahi lekkuñu naanuñu seen mag ji feeñ moo leen gën a lépp rawatina nag man mi nga xamante ni sama papa la. lépp ci moom laa ko jàngee lépp ci moom laa ko xamee ci moom laay sàkkoo xam-xam ci moom laay tarbiyu ci moom laay def lépp parce que man moom laa am moom laa xam doo ma fenn liggéey laa xam wàccu toog ci wetam waxtaan ak moom keroog tawatam bi man ak moom ñoo nekk ci hôpital bi ñoo ci hôpital bi ba sama papa ji nii papa ñaa moom laay woo allo nii ak nii la demee mun ma waa baax na xaam envoyé la des fois sóora mun ko allo nii ak nii la demee mun ma waa baax na xaam envoyé la na suñ mag yi na suñ mag yi wér rek loolu rek moo ñu intéressé ñu def loo xamante ne seen mag yi tey jii nii ñoom dimbali ñuy def ci àll bi bu leen ko ci yàlla fayee wallaahi seen mag yi dina feeñ wallaahi lazim seen mag yi dina feeñ parce que liggéey nañ ko jaamu yàlla yi te ñaan yi ne ñaan yi ne ñaanal nag bu dalee incha allahu rabbi wallaahi ngëm-ngëm boobu laay demee te gëm naa ne dina feeñ di masawoon ak sama bàjjini bu baax a baax parce que sonn nañ ci ñoom tamit ku ci mel ni Assène Awa Tall Adja ba ci maam yi toog ñoom jokko ñag ñoom njéeme Assane Mbaye Oumy Ndiaye ñëpp ci wër bi tooguñu demuñ fenn ba ci sama yaay nga xam si nii ñoom ñaari nekkuñu sax mais chaque jour moo woo ma ba sànq moo ci mujj mu doon loo xam ne si nii nattu la boo xam si nii yàlla moo ko teg mais nag nattu daa noo ci demee yàlla lu ma teg mënoo ci dara dangay bës sa xol muñ xam ne lu mu def rek am na lu gën amaana bu ko yàlla bu ñu yàlla wanalaatee ak moom dina am leneen loo xam ne si nii dencal nañ ko ci moom te xamuñu ko mu doon koo xamante ne nag ñëpp ko respecté jox ko cër xam ki mu doon mbéy man du ma ko sax wax papa laa koy wax parce que grand mbay ci koñ bi papa mbay tonton mu doon koo xam si ne daa am lu mu représenté waxuma sax ci kër gi de mais ci koñ bi mu doon nit koo xam si ne ñëpp ko soxla parce que am na loo xam si ne yàlla moo koy def ci nit mu doon nit nit ñi nag mu baax am yërmande wallaahi démb laa taw sama bàjjen woo ma ni ma sa papa du jaaxle man ko xam naa ci dara parce que comme romb comme ni gars yi defee social moo tax ñii li ñuy def ni du nen parce que lii dafay yàgg moom ci boppam rek ku romb gis ne moo la tane dalay indi jox la nga naan bu jëree sax mën a toog naan ataaya kon kooku du dem fenn ba fan dafa moo tax ñii li ñuy def ni du nen du échec parce que am daa fu ñu ko jëlee lu yàgg la nag dafa ci suñu maam ba ci man mi xam suñu doomam laa mais nag ñu ngi teg lépp ci loxo yàlla. appel ngay lancé yow mi ne. waaw waaw seetaan appel bi ma leen di mooy que ku ci gis sam papa. xam nga des fois da ngay dem affiché say numéro ñii gis ko fii woo ñu la gis naa ko nga leen anamu ñu ne léegi jaar nii loolu lépp dëgg la mais li ñu gënal mooy ku ci gis photo bi gis ngeen ko affiché nañ ko ci ngeen woo ci ci numéro yi koo leen ci woo di ngeen ko jot alors ñu téye ko ku gis balaa ngaa woote sax nga la waay téye ko woo Pape Niang wala Sowru wala man mi wala keneen numéro boo ci mën di gis nga woote alors que saay sa papa jaa ngi nii wala sa mag jaa ngi nii téye naa ko boo ñëwee ba béréb sàngam fii bu doon fii ba kiriku wallaahi dañ koy jëli parce que jar na ko am na lu mu représenté am na lu mu représenté ci ñun am na lu mu def ci ñun te loolu warul échec kon maa ngi ko nga la waay vidéo bi ko gis képp ku ci gis sam papa ji na nga woote teel ñu ko ñu def déplacement ak dérangement lu mu laaj ñu def ko ci jël ko ñaanal la. teral la te wallaahi la man gëm naa ni ki njëkk woote ni gis na sam papa gëm naa ni sam papa yi duñ ko seetaan man mii doo xëyoo duñ ko seetaan kon kooku dina kontaan ci loolu kon ngalawaay ku ko ci gis balaa ngaa woote na ko téye loolu rek laa am lu may lancé yéen nag di leen ñaanal yàlla bu baax a baax a baax li ngeen bëgg fi ngeen bëgg a yegg yàlla yeggal leen fa parce que lu yombul transement ak déplacement yombul di leen ñaanal yàlla nag ngeen yegg fu kawe seen njortu yàlla mën na te yàlla def di masaw sama papa yi bu baax a baax nag ak sama bàjjen ak sama yaay bu baax a baax. yow rakk nga ci mbay. waaw rakkam laa woon. nan nga yëgee disparition bi. ah mbay de vraiment dafa xëy rek dem loo xam ne moom daanu ko def mbay lu mu guddi guddi ci kër gi lay fanaan parce que amuñ lu dul ñun ñun tamit lu dul mbay booy seet man maay sama caatu yaay man xaw ma sama papa xaw ma sama yaay ñun mbay lañ xam ak sama mag yu jigéen ñi ñoom pa booy dégg ci seeni wax lu bëri dañu naan euh, ñun ak ñu ñàkkuñu baay ndax suñu grande sœur yi ak ñoom mbay ñoo ñu jàppale téye ñu di ñu soutenir ci lépp may ñaan rek waa Sénégal képp ku ko gis nga jàppale ñu te yàlla ji rek tax te day am ñu ñuy woo tamit dañu wax gis nañ mbay ñu déplacé wu dem xale yu góor yi seen essence bi suñu waxee rek luñ jàppoon dañ koy bàyyi dem te buñ demee ba foofu ki ñuy wax sax du doon moom may lancé benn appel parce que dañu nekkee naqar xamuñu mbay ci lum nekk xamuñu mbay mi ngi lekk xamuñu mbay mi ngi naan xamuñu mbay ba xam mi ngi tëdd foo xamante ni ni stable na waaw fa mu nekk yàlla rek moo ko xam mais may ñaan suñu boroom mbay ak fépp fu mu mënti nekk yàlla na ko suñu boroom taxaw ba du fa gis dara lu ko jaaxal te ñu ñu ne sa mag dafa mu nekk loo xamante ne depuis le premier juin la ba léegi te fekk na jamono jooju dëkk bi mu ngi tàng yëngu-yëngal bari bëri boobu ba léegi ngeen koy wër fan lay wër bi tool. wër bi tey la gën a metti ñun ñii ñëpp dañoo feebar yàlla xam na ko sama mag yi kër gi da doon fees dell. mais koo ci gisul rek ma nga tëdd këram ñii ñu sampal leen ay pervision ñii ñu nekk ci ay euh, bay sëru mu ngi nii hôpital la fanaan dem man fii ma toog di wax ak yow xam naa ne dama tawat te loolu lépp dara yóbbeewuñu ko lu dul ki dem ki dem wax dëgg yàlla su ma dee nettali fu ñu jaar day xaw a metti ndax émission bi du yegg ndax moom bi nga xamante ni sunu ñaari jur génn nañ àdduna sama papa sama yaay génn àdduna ci atum 1995 man ak sëwru ñu nekk ay xale yu ndaw daf ñoo jàpp ni bu leen jooy man may seen baay man kay maa ñàkk baay bi mu waxee loolu nag kon tey ñun kan lañ ñàkk ñun dëgg-dëgg balaa ngay xam nit fu mu la toll wallaay wuute am tey ñun bu ñu leeroon ni bu ñu bu ñu bu woon ni ñu dafa dee génn na àdduna sunu xel dina dal dinañ ko defal lépp lu ñuy defal ab jullit moom dafa ànd ak ñun ci ba mu mettee dëgg-dëggi metti gisuñu kenn du kenn koo xamante ni gis nañ ko man ak sëwru rek mu xarit sunu dund lu bari tey bu ñàkkee liggéeyam grâce à man ak sëwru ñoo tax moom bëggul yëre bëggul dara moom mësul fanaan àll benn bis rekk laa fàttaliku si dundam fu mu fanaanee àll te da doon ñibbisi ñu ñu ramasse ko ñu dem jëli ko ci guddi gi fanaanu fa mu nekk koo xamante ni man lu may ñaan Sénégal képp koo xamante ni autorité nga wër na yàlla ñu ngi xëy ba tey jii nii ñu ngi xëy ci aajoy jaami yàlla yi waaye nekkuñu parce que ki dem bi muy dem dafa feebar am cardiaque ñu bindal ko ay ordonnance li mu naan ci comprimé yi sax bariwul bis bi mu dem di le premier juin bis boobu noonu ci la waroon a dem def li nga xamante ni mooy benn analyse boo xam ne soixante mille francs lañ lañ ci waroon fay mais yëngu-yëngu yee taxoon moom nanguwul dem yëngu-yëngu yee tax nanguwul dem mais bi ñu toogee ba ay une rek mu mel ni daal da man xaw ma dañ ko xabtal xaw ma dañ ko woo xaw ma li ko yóbbu ba tey jii nii man xamuma ko. bi ñu fanaanee ci ëllëg si wër ko fu ne taal sunu oto yi def benn vidéo publication ñu wër fu ne wër nañ ba fi may wax ak yow ni amul benn police bu ñu demul wala gendarmerie wala fenn foo xamante ni demuñu fa amaguñ ci benn résultat dem nañ police dañuy jox ay rendez-vous di ñu renvoyer di ñu jox ay rendez-vous di ñu renvoyé ba ñun dañoo mujj découragé te li ma gën a yéem ci sama dem mag mooy le fait que téléphone am ñu jëlee ko ci benn mbalit téléphone am le premier la dem le deux bi may jógee yi dama dama ko indaale loon benn téléphone bi ma ko indilee téléphone bi doomam bu jigéen bi rakku ki toogoon léegi daal di photo wu moog daal di ci enregistré numéro téléphone yaayam pour en bu téléphone bi réeree ku ko for mu mën si woote léegi nag bi loolu amee bi nga xamante ni loolu am na ñu ñu di ko wër ba ci àjjuma bi ba ay 11h gisuñu ko ci la am ki for téléphone bi benn xale moo doon fo ci benn mbalit bi muy fo ci mbalit mi daal di for téléphone bi fekk téléphone bi di tàkk. fii ci ci ci ginnaaw nii rek bi mu téléphone bi téléphone bi di tàkk ci la yuuxu ni for naa téléphone yaayam dégg loolu rek yaayam ni ko andil téléphone bi mu indi téléphone bi yaayam xool téléphone bi gis ci photo doom ji ak papa ji numéro bi ci nekk mu woote ci. bi mu jotee yaayu xale bu jigéen bi maman ni ko dama for fi benn téléphone gis ci numéro bi kooku woo doomam laaj ko mu ni ko effectivement waaye nag comme boobu dañoo nekk ci wër tax ki ñuy wër xamuñu fan la nekk ñu am ci tiit ak njaaxle papa bi bi ko yaayam woowee ni ko am na ko for sa téléphone papa ñoom dañoo def yëfu xale dem jël récupérer téléphone bi ñëw mais su fekkonte ni ñun yëgoon nañ ko kon ñoom duñ ko jëli ndax li yóbbu téléphone bi foofu est-ce que sama mag gasuñu ko suul ko foofu téléphone bi lu ko yóbbu foofu te foofu du fréquentation te foo ñu foree téléphone bi du du sax jubluwaayam jëmut sax boor boobu noonu ma yaakaar ni message yi bi mu dawee ndéem justice Sénégal ñun lañ fi nekkal dañoo jóg pour protéger ñu pour dimbali ñu ma jàpp ni loolu ñun bu ñu defee suñuy plainte contre X def suñuy déclaration ma jàpp ni dañoo waroon a jóg ànd ak ñun ci combat bi ñu waroon ñu suñu mag téléphone boobu war nañ ci ubbi ubbi enquête sama mag ñan la doon waxal sama mag lan moo yóbbu téléphone am foofu ba noppi moom ba tey lan moo tax gisuñu ko mais dara dara justice su Sénégal maa ngi ñaan ci yàlla bu dee ñun ñoo leen fi tax a nekk war ngeen ñoo jug wallu ci suñu mag ji ndax bu ñu waxoon ni dee na dañ koy defal fi jullit nangu dogalu yàlla mais xamuñu ndax dee na benn information lañ fi jot muy polisu Malika. benn corps bu ñu trouvé sans vie boo xamante ni dafa décomposé wu ñu denc ko sur place ba ma fa demee ci guddi gi man ak doomam ñoo ànd bañ eggee daal di leen di laaj ni leen ñun de dañoo dégg ni da ngeen am corps bu ngeen trouvé sans vie boo xamante ni denc ngeen ko ñu buggoon a xam parce que sunu mag daf ñu réer tey la am fukki fan mais fu nekk dugg nañ fa ba tey amaguñ benn benn amaguñ benn euh, résultat ci moom xamuñu fan la ko jant bi di tiim nga xamante ni loolu am na. benn policier daal di génn ñëw ni ñu ndax seen mag bi dafa njool ma ne ko waaw dafa njool loolu nag bi mu koy wax man tuuti ma dee fi ma taxaw mu ne ma dafa njool ma ne ko waaw mu ne daa ñuul ne ko dafa ñuul mu ne ndax bopp bi daa rëy ma ne ko déedéet bopp bi da woon bi muy génn kër ga mu ne ma dafa bëri karaw tamit ma ne ko déedéet bëriwul karaw mu ne ma kon du moom parce que ki ñu trouvé kooku mu ne ma ay ñaata at la am ma ne ko moom 46 ans la am mu ne non ki ñu ki ñu ki ñu suul. kooku noonu à vingt cinq ans trente ans la am mais lu mu gàtt gàtt moo xam trente ans la wala cinquante ans lu mu mënti doon nit lu mu yàqu yàqu yàqu yàqu war nañoo mën a am photo boo xam ni bu ay mbokki kooku jógee di wër mën nañu am xàmmee même bu dee baaraamam sax mën nañ ko xàmmee ci sunu mag même bu dee bakkanam sax mën nañ ko xàmmee ci mag mais bu fekkente ne wax nañ ñu loolu ni denc nañ ko est-ce que ki ñu denc du sunu mag yàlla moo xam te ba tey ñu ngi continuer di wër. sëriñi senegal yi nga xamante ni ñooy wër ñi réer li bi sama mag réeree ak léegi liñ ci def buñ ñu ko delloo woon sunu kër gi dinañ ko étage koo ci dem mu ne la indil yëreem gis nga yére yi dañoo weer a weer a weer a weer a weer buy bëgg a dee fu nekk dem nañ fa koo dem mu ni la mi ngi dund kii ni la gisuma ko ci suuf kii ni la gisuma ko ci kaw lu nekk ñu wax ko ma ne leen ànd leen ak ngëm yàlla bu dee man nii rek barki Seydina Muhammad dinañ doyloo yàlla te gis nga sëriñ boo dem muy ñaan billaahi ami internet yi am na ci ñoo xam ne ñoo gën a barkeel seen kàllaama bu lu ñu ñaan yàlla def ko ma ne suñu waa kër dal leen luñ leen woo ngeen def saraxe leen xar ñu génn saraxa xar saraxe lu nekk ndax ki dem jaaxle sama mag Adja deseetul dara dara dara dara dara tey la fi ñëwul mais guddeeg bëccëg subaa ngoon fi lay fanaan sëwruñ kenn nangootul liggéey kenn nangootul dem mais est-ce que tey jotul justice Sénégal jóg dimbali ñu ñun encadré ñu ngir ànd ak ñun ci lieu bi ñu fekk téléphone am sama ndijaay toog na di seetaan vidéo fi ñu fekk téléphone am yàgg mu ni ma est-ce que duñ jël peel dem sulli foofu noonu est-ce que su biñ koy suul bàyyiwuñ téléphone am ci biir yàlla rek a xam. mais est-ce que justice kon warul jóg mais mënuñoo porter plainte contre x yóbbu wax leen téléphone bi ñu ne ñu yóbbu leen téléphone bi ñuy jaabante di dem di ñëw di dem di ñëw ba finalement dañoo mujj toog te dañoo jóg ñoom pour ñun kan ñun bu ñu amee njaaxale xanaa nekkul ñun dañu fee war a nekk rek bu ñu defee erreur ñu tëj ñu waaye bu ñu fekkee dañoo am suñu soxla suñu deret moo dem suñu baay moo dem ki dem su doon bi muy dem dafa tàggoo ma ne ko teel yow nga toog ci njaboot gi nga bàyyi ma man ma dem. ki dem bu tàggoo woon barki Seydina Muhammad dundam moo ëpp téeméeri junni yoon njariñ sama dund man te li mu li mu def ci ñun moo tax kon maa ngi ñaan ci yàlla képp koo xamante ne gis nga sunu mag maa ngi lay ñaan nga foto ko rek parce que fu ne dem nañ fa nit dañuy woo rek gis naa gis naa am am na ku ma gis fii seen mag la bu dee Tuubaa dañuy taal dem bu ñu eggee ba foofu mu ne ñu fii la toogoon wala mu ne ñu dem na wala mu ne ñu aadu ah, moom. moo tax ñuy ñaan balaa ñuy déplacé wooti ku ko gis na ko photo yónnee ñu mbaa nga filmer ko yónnee ñu ko bu dee moom ñu jëli ko fu mu mënti nekk soor mi day fanaan cité Sotrac am na kuñ fa wax ni cité Sotrac la cité Sotrac lañ ko gis ñu ne sama mag bi la ki ñu gis ci télé bi ak ki ki taxaw seen kër di lox di lox di lox di lox ba daanu ci seen kanam ñu laaj ko lan la mu ni dafa xiif ñu jël jël cere ak soow may ko laaj ko fan nga dëkk mu ni benn baraak ba mu ko waxee kër gi kenn desu fi ñëpp a jug mabbeeku daw dem ba ñu demee ñu ni fii la jaaroon fii lañ ko gisoon ba finalement kii dafa dem fanaan foofu ci gardien yi gardien yi ni ko am na ku fi fanaan ñaari fan ku bees la fi waaye finalement ba mu demee du moom mais photo bi ñu wone vidéo ay vidéo lañ teg sax yoo xamante ni bu ñu nekkaan fii dañ daan musuñu musuñu nekk ci lu dul jàmm mu koo xamante ne dafa xare ak dundam pour ñu baax maa ngi fàttaliku bis bi ma njëkkee taal cigarette di tux keroog daf ma dóor ba ma jàpp ni daf maa bañ waaye keroog ba ma ko bàyyee nekk ci di liggéeyal yàlla ni ko doomam bi waxee gis nga kii toog nii ci biti noonu boo ko laajoon mu wax la kan mooy sama mag fii la ko fekk mu toog jaaxle ndekete waa ji dafa am tànk bi ngan di góom boo xamante ni. mu ngi koy sooxaale te amul lu mu fajoo ba noppi bu xëyee mën na fa toog suba ba ngoon jot du am lu mu lekk mu fekk ko fa xaritoog moom di ko indi ci kër gi buñ ko tibbalee añ mu bokk ko ak moom day toog di ko xool mu añ ba pare moom sax du añ après daal dañuy ñëw sonal pour ñun ñu jox ko weccet pour mu dem jënd ci lu mu lekk moom daal na jaam ñu nekk ci jàmm donte ni nag bi mu fi nekkee xamuñ ko woon à cent pour cent mbay réer nga ñu réeral nga ñu sa bopp ba tey nga xëy dem xamuñu fan nga nekk mag ak foo mënti nekk ñun say rak soxla nañu la lool soxla nañu la lool maa ngi lay maa ngi ñaan yàlla barke liggéey bi ñuy liggéey bu dee yàlla gërëm na ko maa ngi ñaan yàlla donte ni sunu mag dafa faatu nañu ko leeralal ba ñu ba mu leer ñu parce que ñaara ñu nii ci kaw suuf ku koy dundaale mënoo nekk ci jàmm sa mbokk bi ñu tëj kaso ak yow mi sa mbokk réer wallaay di nga dundaale fitna yoo xamante ni léeg-léeg nga jàppante ak nit sax te la ngeen di jàppante fekk na tooñoo ko waaye yow kañu tëj moo moo la tooñ kan moo la tooñ ki dem te xamoo fan la nekk. kon nag maa ngi sant bu baax waa 7TV di lancer appel képp kuy autorité ci Sénégal moo xam police la moo xam gendarmerie la. moo xam bip la moo xam dig la moo xam ñu mënti doon te ñuy yëngu ci wàllu yoon maa ngi leen di woo ngir jëmmi yàlla kaay leen ngeen jàppale ñu ci suñu mag yi ubbi leen ñu ci enquête donte ni du ngeen ko gis sax ñun suñu xel dal ñu xam ne ñun ci réew mi lañu bokk sunu kër gi day fees dell koñ bi ñépp yëg ki dem kan la ci ñun ki dem sore na lool ci ñun sama rakk ji nekk kanadaa muy asten nekkul ci jàmm mënta ñëw mënul lijjanti même su ñëwoon lu ci mën ànd ak ñun rek di wër estati na ubbi na TikTok ubbi na YouTube ubbi na Facebook chaque jour mu ngi partagé ay waay ku gis sama mag ji ay waay ko gis sama mag ji ay waay gis sama mag ji sonn nañ dañoo jooy ba amuñu ay ronkoñ bu doon ay jooy mooy delloo si mbay billahi tey fii lay fanaan démb ci guddi dama koo gént tali bu xonq laa ko gént fekk mu taxaw yor sigaratam bi di wax ak miir bi bi ma ñëwee nit ñaa ngi koy romb xàmmeewuñu ko ma ni sama xol est-ce que kon sama mag mi ngi dund waaye nit ñaa ngi koy romb sax te xàmmeewuñ ko moom bi muy dem dafa feebar feebaru cardiaque feebaru xol la am mais fii ci bi muy nekk ci ñun léeg-léeg da daan am ay surmenage yu daan nekk ci moom su mësaana am naqaru xol wala mu feebar wala mu xalaat ñu wala mu xalaat njaboot gi day jékki-jékki rek mel ni ku am dépression daan dañ ko daan jël yóbbu ko raffinerie mbaaw suñ ko yóbboo benn fan rek buñ ko joxee garab bu ñëwee bu nelawee ba yeewu day mel ni dara mësu koo jot mais bi mu fiy génn doomam nee na loolu moo gis na ni. loolu ko daan dal moom moo ko dal moo tax bi mu génnee man mu mu génn dem kenn la daje kenn moo dajeeg moom ñëw fii ci kër gi ni ñu gis naa seen mag bi muy jéggi tali géeju Malika te solul daal la xale yi jóg daw wër foofu yëpp ba tiwaawoon pël ba Malibu gisuñu dara moo tax njort naa est-ce que du kañu denc yàlla bu mu doon moom waaye bu doon photo am na gëm naa ni sama mag bu dee mi ngi dund. wallahi lazi laa ilaha illallah fa mu nekk gëm naa ni du fa sonn mën naa am sax mu sonn fa yàlla yor ay nattoom di ko teg ay jaamam waaye bu nekkoon fii ci ñun wallahi du sonn kon fu mu mënti nekk ñu ngi koy ñaanal mu dellu si ci sunu biir ndax wax dëgg yàlla sunu liggéey yàqu na mënatuñoo xëy mënatuñoo dem fenn gis nga añ bi léegi lañ delloo bool bi tuuti lañ ci ñam teg ko mënuñu nelaw fii la ñuy toog ba quatre di du matin di xoolante rek ku xool sa morom yërëm ko wax dëgg yàlla moo tax maa ngi lancer message képp ko am mag wala rakk même su ngeen noonoo joxante leen loxo ngeen jéggulante deret dafa foor sunu mag ji fi mu toll ci ñun bu ko fa seeni mag tolloon ci yéen wallaay du ngeen bàyyante maa ngi sant bu baax te di leen gërëm kontaan nañ ci waa 7TV bu baax a baax yal na leen yàlla fay yal na seen jàmm yàgg lu ngeen bëgg yal na leen ko yàlla defal waaye sant nañ bu baax nday petaaw moom tamit sonn nga wax dëgg yàlla yëg nga li nga xamante ne moo dal ci suñu kaw yëg nga li nga xam ne moo dal suñu kaw waaye ñu ngi sant amee internet ñëpp ñi nga xam ne ñoo partagé ndoo ak ñu naqar bii ba lépp lu fi diisoon tàmbalee woyof yal na leen yàlla suñu borom fay. ameen dégg ngeen ko noonu moom Pape Niang mi nga xam ne day yëngatu si wàllu social di dimbali jaam yàlla yu bëri nag tey nattu bi dal si kawam mu nekk loo xamante ne lu métti lool loola ndax bi ñu tey benn baraak fii nga xamante ne fi la nekk fi la magam réere Euh, kër gi mbokk yi xayti am di jàmm yi ñoom ñëpp kenn mënul tëye sa morom waaye dañuy comprendre dañuy faral di wax ne nit ki bu ñàkkee bakkanam sax nga xam ne ñàkk na bakkanam nga jooy ko après mu génn si yow mais ku réer dafa métti parce que xamoo fan koy seeti saa yoo xëyee da ngay wër kon suñu grand mbay boobu yàlla na ko yàlla nit di ñaan yàlla rek képp koo xam ne gis nga ko téye ko nga foto ko numéro yaa ngi noonu filmer ko envoyé ko si whatsapp bi bu ko defee ñoom ñu doog a a déplacé wu parce que xam nga ñu ñuy wër boobu ba léegi lu mat fukki fan ak juróom ñu commencé di ko di ko wër nga wax leen mu ngi fii ñu dem ba foofu fekk na du woon moom wala ne dem na léegi képp ku ko si gis rek nañu dimbali laay war a suuli mu photo ko ko envoyé leen ko si whatsapp bi bu fekkee moom la ñu def déplacement dem jëli ko yéen itam dégg ngeen Pape Niang message mu wax léegi ki nga xamante ne rob nañ ko si géeju Malika dégg ngeen ni mu ko décrire koo xamante ne dafa njool la am karaw ko yàlla niit ak ay mbokkam la jaaxle nañu lool lool lool lool ndax réer dafa metti jaajëfal naa leen bu baax a baax rendez-vous incha lay doonaat si biir 7TV télé bi ñu nuru ba nopp li ñu dajale 4 heures bi Cheikh Ñaa moom moo nekkoon si cadre cadreur bi euh, Cheikh Saad bu di jaajëfal Paalo bu baax a baax moom tam ci oto bi jërë ngeen jëf waaye mbal maa ngi leen bu baax a baax benn baraat